Ah, ba tey sëriñ Babacar indiwul xool ko si giwul benn yoon di ko xool ci ci ci ci ci ragal yàlla sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu daan na wax ni eh, fi mu tolloon ci wàllu cër ci wàllu yàlla ëllëg yomal xiyaam ni firxaw na di bon di mu yées ba yées ba yéesaatoo ndax moo fi waxoon ni man maa yàlla ji gën a kawe ana rabbukumul ala rabbukumul ala sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu moom moo ko waxoon ni nee na bu ma ni woon yàlla rus ma man sëriñ Babacar ci dugal firxaw na àjjana yàlla dina ko def allahu akbar li firaaw nay bon bon yëpp mu ne bu ma ne woon yàlla rus ma ci yàlla jéggal ko bu ne woon yàlla rus ma jéggalal firaaw na yàlla jéggal ko dugal ko allahu akbar sëriñ Babacar sëriñ Haj Malik jëleewu ko fii sëriñ dafa daan toog oustaz di summi boppam di wane liggéey bu nekk ci bopp bi naan liggéey bi ma ma dalee woon badar di wane liggéey bi liggéey bi ni ma ngi ma dalee woon badar xare badar xare badar su waxtaan wi yaatu woon daañu ci yaatal wala kilifa yi bàyyi ñu may ñu ndigal ñu yaatal ci wàllu woowu mag ma dale woon Badar kon sëriñ Babacar fu mu jóge allahu akbar moo loolu moo lay woon wilaaya Sidi Sidi El Hadj Malick ak wilaaya sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu sëriñ Babacar ni lii mag ma dale woon Badar kon sëriñ Babacar bokkoon na ci xeexu Badar ba allahu akbar sëriñ Babacar fii la jaar ak yàlla jaar faak maggi tiwaawan yi sama gars yi wa tawaasaw bil haq lenn rek moo ma jaaxal Sénégal man moom mu sumaa dem benn dëkk wala may déglu benn ojo boo xam ne ki koy wax beneen dëkk la dëkk bu dul Sénégal mu de fekkee ne xare Badar man lenn moom moo ma jaaxal Sénégal moom seen paa yëpp nee nañ fekkee nañ xare Badar man moom lool ci li ma gën a yem ci la bokk wallahi lazim te damay dégg ay borom xam-xam yoo xam ne ñu toog ci plateau télévision yi di ko di ko dëggal parce que dégg naa benn seriñ boo xam ne waa woon la doon représenté benn jour muy wax bay yéem euh, Seydi Aboubacar Sy daa di ne euh, mus na xaw ma simi mbaxaneem benn waaye gis benn lëgët bu fa nekk mu koy laaj mu ne ko kii xare Badar la ma dalee woon ma li ma jaaxal mooy ñoom ñëpp fekkee nañ xare Badar man loolu moom ci li ma gën a yéem ci la bokk ca man musu maa gis benn téere bu ñu bind ci sëriñu Sénégal yooyu ne ne ne teewoon nañ xare Badar man lool moom ci li ma gën a yëm man ci la bokk te ñoom avant ñuy judd xare Badar weesu na te ñoom nee nañ fekkee woon nañu ko man loolu moom ci li ma a yëm man xaw ma loolu nu ma ko mën a mais loolu yëm na ma torop te sëriñu Sénégal yi kese la nag ñoom ñoo naan fekkee nañu xare Badar ay nit toog ci plateau télévision yi di ko dëggal wallahi lazim ci li ma gën a loolu ci la bokk li ñu ne ñoom fekkee nañu xare Badar man loolu moom ci li ma gën a yëm la bokk Euh, salil boppam wax ne sëriñ mbay ndaw dafa ñëw nuyook sëñ Fallou sëñ lu jóg ci fauteuil bi ay tànkam di metti mu dellu toog daan wolof yi de li ñu wax dëgg la nee nañ faxaj du wér Baye mbay ndaw ne ko Cheikh Mamadou Fadal yow lu war a faxaj ndax yow nii nga mage noonu nga gone woo mosoo fa kon lu la war a faxaj Baye mbay ndaw nee na Cheikh Mamadou Fadal ne ko mbay ndaw wax nga ne maag yow maase waaye maalam ak fopp ndax man démb laa tey yow tey nga daane ko boo bëggee xam luy metti samay tànk demal laaj ko Aliou Fall Mbawar ca Touba Fall daane keroog ba sama boroom digal mbooleem góor yàlla yi ñu dem sot la ji waa Badar ca laa jóge ca pays ba ma nekk dem sot la ji waa Badar bañ gañe xeex ba muy xaswatul Badar sëñ Fallou nee na ba ma fa jógee lëndamuk àddina gi jàpp ma ak leeruk pays ba gand ma ba ma dellu si dal ci aw doj wu nekk ci màgg loolooy metti sama wóom bi daan ko waaye mbay ndaw li tax ma ne la laajal Aliou Fall Mbawar mooy bisub keroog Aliou Fall a def biddiw ca pays ba ma tegtaloo ko ba yegg keroog la sunu xarit tàmbali. kon loolu képp. te yàlla te yàlla. juddoo Sénégal ba génne fi àdduna ñu ne fekk woon nga xare ba daat xanaa baatin gi la ba baatin gi de ak <laughs> yow Serigne. Ah, li baatit gi la ah xaw ma dañ xaw ma la xaw ma waaye doy na war de ah baatit def nii de baatit ngay def effet bii nii effet bii moom baatit kese koy def waaw gis nit ko xam ni wax dëgg yàlla sénégalais gii la nekkoon yàggul dara dara dara ba mu génne àdduna yow nga ne fekke woon na xare ba dar waaye wallahi ku fekki xare ba dar doo jël mukk nit eh, di di ko teg mu kawe saxaaba yi waaw mbokk yi islam islam métti woon na de commencement ba wallahi léegi la rek ku nekk nga toog fu la neex di yóbbu sa bopp fu la neex naan fekke naa lu ne waaye xam nga mos ay ay góor yu nekk ci désert ci àll goo xam ne amul kenn ku la àtte nga jàkkaarloog sa moroom góor mu yor jaasi nga yor jaasi ngeen war a taxaw rayante ah wallahi ñun ñëpp kenn mënul imaginer loolu lu mel loolu film yi sànni nga dafa yomb ku ci imaginer woon sa bopp rek tey jii boo yoroon paaka jàkkaarloog sa moroom ci àll ngeen war a rayante di nga xam ni ndaxate yoo oh, wallahi saxaaba yi ay gaynde lañ woon yàlla dëgëral noo la leen trop loolu moom wax dëgg yàlla ah, senegal dafa dafa dafa neex rek ku fi toog fii di teg sa bopp fi kaway saxaaba yi wallaay boo fekkoon badar doo ko def. waaw ñii moom wax dëgg yàlla li ñuy wax moom ah, nit ñi ñoo réer rek waaye li ñuy wax dara dara dara dara du ci dëgg lépp ay feeni nan lan waaw su dee kilifa gi mu wax ne moom moo wax loolu loolu du dëgg su dee moom mi moo ko wax du dëgg. yi moom wax dëgg yàlla ay réeral nit la ak ay ay yii moom askan wi dañoo war a passé fii waaye yu ñàkk fayda fulla yi mi ngi noonu daal Sénégal daal. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah kooku <laughs> bu ma dajji waay <laughs> wax nga tur bu ma bu ma gëj a dégg <laughs> dëgg la bon kon kon ñoo ci bokk yem nag ñoo ci bokk yam vraiment ñoo ci bokk yem te nag gars yi taxaw di layal loolu noonu man bëgg naa ñu ñëw expliquer ñu quoi ñoom nan la ñu fekkee ba dara ak lan lañ fa def quoi ah parce que man de li ma jàng moom man li ma jàng <laughs> gisuma fa seen tur de vraiment gisuma fa seen tur bëgg naa nag ñu leen di layal ñoom ñu ñëw ñu wax ñu nan nan la gars yi fekkee ba dara te bu ñu wax ne nekk fan lañ ko waxee suñu waxee fan lañ ko waxee rek man mun naa leen indil ay vidéo mun naa leen indil ay bind yoo xamante ne nii sëñ Babacar si daf ko wax euh, sëñ Moussa dafa wax ne sëñ Baara Mbàkke fekkee na bara loolu mun naa leen ko indil <laughs> mu ngi ak man <laughs> voilà. <laughs> dégg nga moo nga ca dégg naa man loolu moom ma juddoo ba léegi moom dama koy dégg diw fekke woon na xadar ba xaare badar surtout bu weeru koor jotee mooy ñooñu ñuy dalal ci plateau xaw ma xaw ma émission boobu nu mu tudd xaw ma quartier général lañ koy wooye xaw ma quartier euh, kii ni ngay waxatee quartier xaw ma naanati général la yaakaar na dama ko fa dégg ba taay wóor na yàlla diw fekke woon na xare xam nga man mu ko yàgg a dégg kii naan sama tànk wi xam nga fa la rëkkee kii naan sa sama cuket wóor na yàlla lim lay wax nii sans caaxaan li ngay wax nii effectivement noonu demee dama ko yàgg a dégg paa yoo xam ne ba ma ba jaxu ba wootee jaaram ja rek demu ñu bëgg a sonal ni ñu naan fekkee naa bara te yow bi mu wootee somb rek demuloo wala fekkee wuloo ko ba pare bëgg a sonal ni ñu nga ne fekkee nga bara te yow bi nekk Sénégal gi la jege nga juddoo fa yaa ngi dégg bi ma ba jaxu ba wootee benn waat yaa woon demul bëgg a sonal <laughs> nit ñi naan naan naa badar lool ay soob la rek wallahi waaye salaamatulah barakaatu Adama na def na koy tey yéen si jàmm macha allah alhamdulilah Adama man moom nee naa léegi benn qaayda laa bëgg a teg ci groupe bi yëpp at groupe yëpp léegi laaj bi mbokk yi dee ko laaj képp ku ne na badar nekkoon sa pap fekk ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala déet ñii di wax ne gis dem nañu Badar léegi dañ leen laaj kon yow sa papa gis na Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nañu wax Mouhamed sallallahu nan la mel su fekkee ne gisul Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam te teewoon na Badar kon boobu Badar amul. kon boobu Badar Badar xam te nii ci Sénégal la woon rek mais jamono colonial yi mais Badar bi xam te ne amoon na mooy Badar xam te Mouhamed sallallahu teewee nag ak saxaaba yi léegi mu wax ñu saxaaba yi nan la mel wala moom ci saxaaba yi la bokk benn question bi imma sa papa day nekk. ànd ak badar ànd ak muhammad saa sallam ànd ak saxaabi moom mu nekk saxaabi kon dañ ko wax radiallahu anhu wa arda wala imma fekkewul badar dafa gént badar ci ay nelaw mu yaakaar ma ngi ci fekk bokk ci wala imma mu réeree taarix badar xamu liy badar mu daal ci dëxëñ mbir moomu pour gën a dëgëral bidaa bi mu nekk at ashirkaat yooyu xam ne du dëgg ay fen la ay kàcc la waaw bu fekkee dàq na ñett rek dàq na bi ci njëkk ni ma papam gis gis Muhammad saa sallam àndoon ak saxaaba yi ah ñetteel bi mu dëggal ni moom kat da koo gént ñu ne ko lekkoon diin islam bokk diin bu gént kon sa baay fekkul badar waaye képp ko badar ne kon yow gis sa papa gis na Muhammad saa sallam waaw laaj ko rek képp ko wax ne moom papam fekk na badar ne ko waa sabab fekkee na badar waa kay kon Muhammad sax nan la mel Abubakar nan la mel Omar nan la mel jox ñu màndarga saxaaba yi loolu lañ soxla ci yow comme que sabaay dem na badar wax ñu sifaat ñu fa nekkoon ci badar waa kay jaawalewul kii est-ce xare xare badar ak kii ak euh, tudd sax ak kii euh, guerre ba mën na leen jaawale mën na jaawale xare badar ba ak guerre mondiale ba <laughs> waaw euh, Pape moom Pape Hann Pape Hann man man lu ko gën lu ko lu ko tax a ñemee yàlla Pape moom ah, day dalal kenn nga wax dara lu rëy allahu akbar te yow kooku la muy wax dara du ci dëgg dëggal dëggal ma wax ji rek naan ay bi mu simee mbaxane bi léget bi léget bi waaw kon ñoom dañoo jàpp ne seen léget yooyu moom <laughs> maanaam mooy prouver que ne teewoon nañu badar non man paa yi dañ maa jaaxal paa yi dañoo mës a teew benn xare paa yi di wax ni yëpp mus ñu teew benn xare paa yi yëpp di wax même jamono yi ceddo yi di xeex sax paa yi daawuñu dem paa yi yi wax neen fekk naa naan fekkee nañu badar yëpp fekkeewuñu dara mus ñoo teew benn guerre paa yooyu di wax yooyu yëpp ndax ci histoire doo ci liir fenn ci histoire u Sénégal muy ci archives yi nga gis ci sëñ Babacar ak ku doon ñu ne la teewoon na ci yaa ngi dégg bataay sangam wala bataay sangam paa yooyu kenn daaw ci guerre dañuy sóob rek mosuñu fekkee bara sa waay man ñàkkuma tegin kenn saagawuma kenn loolu dégg fen la man dama ne donte man dégg naa ko ci dut kenn bay dégg naa ko ci mbay donde dégg naa ko ci Oustaz Matar Sarr ñetti ñi dégg naa ko ci ñoom ñu ne sëñ Babacar si fekkee na badar ma lay laaj yow pour nga laaya biir ma c'est euh, que ñii en fait en réalité wax ji ñuy wax ñii li ci gën a mooy dañuy wax ba dugal seen bopp donc ñoom bu ñu waxee ni fekkee nañ xare Badar te ñoom ñëpp Sénégal leen nekk kon ñoom ce qui veut dire que ñoom xamante woon nañu alors donc ba ñu dajee fii ñu am surprise waroon nañu ne waaw yow depuis ba ma la gëjee gis mooy xare Badar xanaa loolu waroon nañ ko toog di ko waxtaanee di expliqué bu ñu toogee ci mbooloo bi kii naan demal nga laaj sëñ Babacar kii naan demal nga laaj sëñ bi nekk ci murit yi ñun ñoo daje woon ci guerre ba ki naan ko d'ailleurs man fii sax kii moo ma fa dóoroon ba wax sax ennemi diine bi ko waa Xuraysh yi ko fa gaañoon te leneen di ci nekk tamit mooy dafa garaaw lu ñuy wax ni parce que ñoom bu ñu waxee ni xeex nañu fekkee nañ xare badar parce que xare badar fi xeex yu njëkk yi la donc ça veut dire que ñoom ñi leen jur kon ñi ngi doon dund période bi nga xamante ni diine amul woon kon ñoom dañoo bëgg nii donc ñoom seen ay waajur donc nekk ñu woon ci diine parce que sëñ Babacar Alaaji Malik moo doon waajuram beneen sëñ bi sëñ Tuubaa moo doon waajuram bu fekkee ñoom fekkee woon nañ xare boobu donc ça veut kon seen waajur yi ñu ngi fi woon avant te avant mooy période bi nga xamante ni diine amagul woon nga xamante ni dañoo doon rey jigéen ñi di jaamu ay xërëm ak ay kenn xamul donc kon ça veut que ñoom dañoo bëgg wax ni génne nañ kon ñoom seen propre waajur ci ci diine te leneen li ci gën a kéemaane tamit mooy ñoom li ñu bëgg a wax ni mooy dañuy wax kon affaire réincarnation parce que boo demee tey ci budaay ñoom seen religion bi yëpp ci yooyu la basé wu ay réincarnation ay nit koo xamante ni day dee di dekk ci waat di ñëw di nekk ay ndaw ay demee noonu kon ñoom loolu lañ bëgg a jël mais loolu moom amul fondement islamique dañuy wax nii donc euh, man je pense que ba ñuy enregistré seen wax yi ma suñu xalaat ni lii àdduna dina dox ba nit yi ñëw di ko di ko di ko tegaat nii quoi xam nga genre wax yu mel nii nag boo ko déggee nga ne nga dëggal ko ba pare nga ñëw dégg tey El Cheikh di wax nga koy weddi xam nga loolu yabaate la parce que ku mën a dëggal lii wax dëgg yàlla lu la El Cheikh wax nga war ko mën a dëggal tamit nañu waxante dëgg waaye li leer ba leer mooy ñun waa Sénégal war nañ sant yàlla ko parce que wàllu yu amoon ci àdduna bi daal ñi fi gën a màgg ñëpp daal ndekete ñun ci Sénégal gi daal la leen yàlla delloo loolu daal moom lu dal xel la léegi nag xalaat leen ndax lii kuy déglu lu mel nii ndax lii dina mën a tax nit ànd ànd ak pas-pas taw si si si si si si diine ndax fonk diineem dëggantaan parce que yow boo toogee nit ki di wax ni fekkee naa xare badar sa xel tuuti nga gëm yooyu yëpp moom mu wax la moo lay ràmboog di la jox ay wér-dégg loolu mais kooku sa diine dootul dootul dëgërati parce que da nga naan diine gi soxlaatul sax may sonal sa bopp ndax kii dina ma dina ma ci génne donc ñoom am na ñu bëri ñoo xam te ñu ngi génn ci diine bi wala seen diine ñu koy ñu koy jaamoo baaxul maanaam dañuy caaxaanee diine genre wax yi ak genre mag ñi ñoo leen ci dugal moo tax seen responsabilité devant yàlla dafa nar a rëy parce que ñoom mooy sax Moïse ak Jésus Christ si boppam bu buñ ko laajee bu buñ ko jëlee témoignage moom day day day day wax yàlla mu seede ko contre peuple am ndax moom moo leen waxoon ni doomu yàlla la mais ñii ñoom ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñëpp di ko dégg ñii du soxla sax ñoom ñu naan dañuy dañuy jël yàlla témoin parce que ñoom ba ñuy wax ñëpp ko dégg donc ñii moom man seen ay affaire moom kéemaan na daal doy waar. seen dañoo reeree seen cere yu saf rek ñëw di sonal nit ñi naan ay fekkee nañu xare badar ak ay fekkee nañu Uhud ak yu kenn xamul kenn fekkeewu ko ci kenn fekkeewu ci xare badar ñoom ñoo ñu di wax amul ku ko ci fekkee kenn fekkeewu ko ci ñoom kenn fekkeewu ci xare badar loolu moom waaw ay lettre M rek kenn fekkewu ci xare badar ci ñoom muy ci ñoom muy seeni waajur ak kum ci munti doon kenn fekkewu ci xare badar suñu fekkee woon xare badar ñoom ñooñu seen tur dina nekk ci xam nga ci archive yi kenn fekkewu ci xare badar dañuy soob rek bëgg a sonal ni ñeeg di wax wax yi daf ba pare yooyu ñu wax noonu looloo ci gën tuuti de parce que koo ci dégg daf naan am na loo xam ne waxtaanu biir néeg la ñemewu ma ko wax ci kaw parce que boo dégloo waa ji au fond loolu la wax bu ñu sëri bu ñu bu ñu kilifa yi mayoon ndigal am na ci loo xam ne dinañ ci développé bari na ci loo xam ne dañ koy wax ci seen biir nga xam ne ñoomu neen lay doon wala nga xam ne ba nga bokkee yi seen biir nga ko doon dégg ñu koy xam nga wax waxu suuf yooyu noonu parce que ci seen wax da nga koy faral di dégg ku naan waxtaanu biir néeg laaj lañ ma wax ca biir néeg ba lañ ma ko waxee waaye fàttewu ma ci dara waaye du waxu penc dama ne yooyu ay waxu naxa sa xantang la kenn fekkewu ci xare badar ci ñoom loolu faux débat la c'est une faux amul ku ci fekkee xare badar ci ñoom du ñoom du seeni waajur kenn fekkewu ko ci loolu moom jarul sax négocier loolu jarul sax débat parce que kenn mënu ko prouvé du ci téere du ci image du ci dara xel mu sell sax nanguwu ko kenn fekkewu ci xare badar la xam nañ l'islam kañ la ñëw Sénégal ban siècle la l'islam ñëw Sénégal ak ñaata siècle la fi def yaa ngi dégg tasawuf ñëwul Sénégal l'islam presque def na euh, euh, li ñuy wax si siècle la def Sénégal yaa ngi dégg donc ci euh, bi mu duggee Sénégal ba pare duré fa six siècles yoo xam ne tarixa amu fa donc ñoom ñii di wax ni yëpp kenn fekkewu ci xare Badar amul kii ko kenn fekkewu ko ci loolu moom jaru sax débat c'est une faux débat kenn fekkewu ci xare Badar ci ñoom